amoo morom papa ñu ngi lay nuyu di la bu baax a baax Fall bleu vert nga laal di ak <laughs> noir. waaw man de. bleu moom man kii ba kii maanaam yooyu daal. bëgg naa la ba pare daf maa duggul ay kii ba mariage de couleur ak yooyu. Uh-huh. talluma ko naset rek dëgg nga dëgg day sol ay yéreem sañcewul. naset rek naset. jasner la gis ngeen ko mi ngi nii. dëgg la kay waaw. lépp Pastef rafet. donc père jees na dafa am ñaar de. Ah, neer. boo xam ne jees ah, neer nga xam ne boo na ne tey dinaa la caw ndax man la indi woon werante waat démb ak bëkki démb la ma bañaloon moom la nangu tey. mooy lan. ak njaboot des koy ñàkk. musuma koo bañ. ak njaboot dégg ngeen. musuma koo bañ ak njaboot des koy ñàkk. musuma koo bañ. ma taxaw ne ñett war nga koo bañ. foo xamee kii ki nga àndal kumu. Mm-hmm. foo demoon. Mm-hmm. lii nga yor foo ko jëlee. ba ma ko musuma koo bañ naa ko wax ay jamono musuma koo bañ. nanguwu ko tey la ko musuma koo bañ. defal naa li ma mës a bañ mooy. ku amul doo yar loolu laa mës a bañ. dafa ca marché boobu laa taxaw ba léegi. koom ak yar bokkewul dara doomu kilifa fi nekk di fooyee yamba fooyee sàngara fooyee drogue ak ak damaa am koom dama bëgg man damaa am métit. léegi nag ma moo tax ma mujjee ñëw mais xam nga ne bi ñuy débuté maa ngi fi. Mhm. léegi nag ma mhm. boobu ma bokk muy waa Daaray Kaamil. ak panelu Daaray Kaamil. à foofu la oustaz Seck nekk ci daare kaamil ci ñoom Masata Seen Balde ñoom Caane Rasul Mbeng ñoom Tuuti Njaay ñoom Jeet Njaay ñooñu ñoom ñoo nekk ci panelu bi nga xam ne moom la ñuy wax daare kaamil léegi nag am ca koo xam ne ñu ngi koy wax oustaz Seck oustaz Seck moroomu ñoom buri buri caw la daan àndal ak ñoom yadan ak le grand frère de Massata Sène ñoom ñoo bokk même génération. Mhm. Oustaz Seck moomu nañu wax léegi ne moo génn àdduna. Mhm. nee nañu ba par accident. fii ci placement loolu métti kii kii naqariw ma mais métti na ma. dëgg la maa ngi koy jaaree waa panel bi yëpp Massata loo ci xam balaa émission bay jeex ndax xam naa yaa ngi suivre en direct maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp di nuyu ba panelu anciens élèves de l' école 2. ak ay kaamil nga xam ne at ma nekk ñu booloo dajaloo wàcce ay kaamil génnee ay jukki yéen duma leen mën a mës a mën a fàtte ci këru àdduna di nuyu les anciens de l'école de dale ko ci grand ma ko jëmi président grand Drabo Tasiru Diallo Mayasin Mar Doudou Assane Diop fàttewuma kenn Sayer Sarr Abou Dieye fàttewuma kenn kenn kenn Maguette Camara maa ngi lay fàttaliku bu baax a baax a baax Maguette Mbodj yéen ñëpp fàttewu ma ci kenn kenn kenn kenn laa fàttewul surtout grand Alioune Badara Ndiaye bu école santé militaire Pape Ngom Sédima école santé militaire grand Alioune Badara Pape Ngom Sédima yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di gërëm di leen sant bu baax di leen ñaanal di leen ñaanal jàpp Touba actuellement commence à faire le plein. Ah ah sëñ Muntaxa Basiru Faatu ma Maamu maa ngi lay ñaanal gudd fan yaram mujj gu rafet sunu borom tingoom la ba ñëpp seen ko te dara bañ ko yàq buggaan ngay dan sëñ Moustapha Ndiagne ak képp ku ne Daaru Xuddoos maa ngi leen nuyu sëñ Ismaïla Mbàkke yéen ñëpp maa ngi leen nuyu surtout soxna Fatma Cubb yëpp surtout gànkal moodu ma xura jë yëpp maa ngi leen di nuyu kenn waaye sang bu tedd ba Cheikh Mouhamadul Abib Mbàkke ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman Serigne Abdou Kandji soxna Ami Sakho maa ngi lay nuyu Darou Rahman ñëpp fàttewuma kenn le plus jeune des promoteurs bu Kandji production Moustapha Kandji maa ngi lay ñëpp ñoom mbee nag fàttewuma kenn waa kër ga ñoom Fatou Mbacke Jigal fàttewuma kenn ñoom Daba Kandji fàttewuma kenn maa ngi lay nuyu di nuyu nag. ki nga xam ne kenn la ci man muy El Hadji Djibi Guèye ngi koy nuyu bu ndàngura bu coloon maa ngi koy a baax a baax di nuyu sangam boobu sëñ Moustapha Mbacke maa ngi koy nuyu bu baax a baax bu sëñ Sidi Mokhtar ndaxte dafa demoon ba tollu jamono joo xam ne soo ne El Hadji Djibi Guèye ci wetu Cheikh Sidi Mokhtar mu ne Djibi Sàmmos ñu ne ko waaw ndax da koo féetewoo woon maa ngi leen nuyu yëpp di nuyu Soxna Ramatulaay Ndiaye di nuyu Amina Chop fàttewuma kenn ñoom ñëpp fàttewuma leen boutique Sëñ Saliou moom mi ngi fii ci route des Almadies ba fàttewuma leen di leen nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax di nuyu baax waa Daaru Salaam fàttewuma kenn sëñ Galas moom sëñ Moodu Rokhaya maa ngi lay nuyu bu baax a baax maam Ablaye Bay Bayaar am na fa turandoo ci kër ga am na fa manal koddu ngoy manal koddu ngoy Mbàkke am na fa soxna xari Penda Mbàkke ma nga fa sëñ Galas moom moo leen ko tuddee maa ngi leen di wax sunu maam yëpp nga fa maam Modou mi nga xam ne moom moo jur sama nijaay sën mi mu nga foofu ñu uufal ko ko ca Daaru Salaam màggal bu jot yàlla na ma ko sunu borom di mën may bay xabru ba di ko bay. d'accord papa maam Ndongo Kumba Ngay Ngay ma nga fa. soxna maam maa ngi lay nuyu bu baax a baax bu Cheikh Mamadou Abi Mbacke soxna maam Bousso Tamba maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax bu sëñ Alaaji Bousso Tamba fàttewu ma kenn. soxna bu so jaañ maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaye waa daaru mar naan sën ngañ tàngi ne daawuda jaañ maa ngi lay nuyu bu baax a baax El Hadj Mbaye Touré maa ngi di nuyu kala baabu di nuyu kala kala. fàtte ma kenn El Hadj Mbaye Touré maa ngi lay nuyu. père nuyu ma fi nag. dafa man man kii. nag damaa bëgg a dem Touba. kii dafay am émission lan. ba a àllarba. waaw borom Touba Ndiassane Cheikh Ibrahima Kounti bàyyi ba dimanche du ma la mës a bàyyi ban bàyyi bañ def dimanche lundi nga dem mardi mercredi jeudi la ñuy màggal sëñ Ibrahima Kounta bu Ndiassane Touba Ndiassane maa ngi lay nuyu bu baax góor day wëndeelu góor day dox sëñ Touba moo ko wax mm. Kaolack la jaare jóge Kaolack dem Saalum jóge Saalum dugg Gàmbi génne Gàmbi dem Mali te xam nga ñaari dëkk ngi nii yoo xam ne ku fa jàngee wala nga martuli ko fa daj nga loo xam ne mburu daju ko ci muy gànnaar ak Mali de Tumbuktu à Gao ba gànnaar Sarsara fu mu mën a doon sëriñ bu la ne jaar na fa rek xamal na sëriñ boobu daj na loo xam ne mburu daju ko ci taal. ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. waaw mauvaise fréquentation cause mauvaise fréquentation cause et conséquence nee nañu lan moo ko mën a jur. lan moo ko mën a jur maanaam lu koy indi waaye lan moo di mu jëm. bu kilifa dina ko indi ci doomam waajur dina ko indi ci njabootam mauvaise fréquentation nga jur sa doom mel ab safaan di tux ci ay saagay ndey ci kër gi di dóor ndeyam ci kër gi di guddee tëdd soo ñëwee coow li kenn dootul nelaw ci këru àdduna gune gi xool te l'enfant copie trop sur son père l'enfant copie trop sur son père. koo jëlee foofu. ndax nee noonu le milieu détermine la personne waaw ci milieu boobu su ko yàlla baaxewul yaral boppam dëppandi ko mu dëng mooy gën a yomb mu baax mhm. nee nanu way jur dina ko teg ak njabootam ñu ne way jur ba ci ab surga sax ak ku mu mën a doon ki nga yar rek mu gis ngay julli mu juddu nga jënd ko xar mu day tuddee ko tur wu baax a baax a baax a baax jël ay xoraan mu njëkk ci ab dënnam diggante boobu nag ba keroog muy gimmi di man boppam dafa mitti foofu dafa mitti foofu guerre la ak ab ñag la foofu lu mu laajul amul ndax yaa ngi ci jubante di defar ndax dafa toll foo xam ne yaakaar na ni lu ko neex rek moo am lu ko neex nga di ko jubbanti nag di dévier di orienté ay ca jógal julli sooy julli ji jàpp ci ab loxoom sooy jàpp mu nekk sa wet ne ko ah ah du nii nee nañu koñ boo xam ne mbërum làmb dafaa juddoo am ay mbëri làmb soo moytul mbëru làmb dina fa mës a lu mu yàgg yàgg yàgg ndax le milieu détermine la personne koñ boo xam ne dafa am baar ñuy xeex di ay mbaar yi am prostitution sabar yi rëkk nit ñi kii nee koñ boobu lu mu yàgg yàgg bu nawee soo moytul dinga nga ci gis ivrogne ca gune ya ndax doon si taatu biteel ya ak léeg-léeg ñu xeex toj mbaarik ci mbedd mi daw ñu àttee ndax koñ bala le milieu détermine la personne kon boo xam ne dafa am jàkka am juma am kuréel ak sëriñ dëkk fa ñuy sant ñii di ñii di ay xadara mu am fa ay panel yoo xam ne comme daaree kaamil ni mu nekkee Pikine nee nañu koñ boobu soo moytu wàlliwu dina fa mës a génn wala nitu yàlla mm-hmm. ndax doon jàng jàpp di jàng julli jàkka ja jege na fa doon yi toppandoo ndax xale day imité day toppandoo ba xale la mu gis rek la mu gis rek moom lay topp waaye daal kilifa goo xam ne dafa ne ba xam jël doomam dugal alxuraan ci ab dënnam xar ci tànk tubayam la doom sa bopp jabar sa genn wàll doom sa bopp jabar sa genn wàll jabar su neexee mu toog su naqaree ñaare comme ni ko Kajoor waxee mu dem waaw bokk leen dara yow ak moom <laughs> ab sa yàlla te da ni di tàggoo lu mu yàgg-yàgg da ngeen tàggoo soxna soo mën a yor da ngeen di tàggoo su àpp ba jeexee sëy ndax waru dàll la su daggee di ngeen tàggoo comme bakkan su daggee di ngeen tàggoo mm-hmm. su ngeen demee tamit ba nga xam ne tàggoowu leen ci foofu di ngeen tàggoo bàmmeel dina leen tàggale lu mu yàgg-yàgg da ngeen di tàggoo moom ñaari way dencante doom yi tàggoo doom yi nag moom sa bopp la mën ngaa tàggoo ak soxna sax mu dem feneen mu neex lool mu fàtte la doom ji mën nga koo jur dugal alxuraan ci ab dënnam yar ko teg ko ci siraata mustaqiimam doo ko réccu ba fa nga tëdd daf la fay fekk ëllëg ak ci biir day jóg di taxaw di la ñaanal di la defal ay dog di ñëw di ziar sa bàmmeel di la wàcceel ay kaamil di la toggal ay laax di dajale ay mbooloo te yaa ko rob ci moom loola def la fay fekk si kon cause yu bare ngi nii conséquence si nag ci biir waxtaan wi lay ñëw dañ ciy ñëw so on parle de hmm. euh, mu nekk lu nga xam ne ku ci nekk ci ñun da nga koy jéem a maytu hmm. mais des fois les circonstances wala les conditions yi tax nga xamee kooku parce que ñun ñëpp ku ci afet duñ ne ñun ñëpp sax mais ñi ci bëri ci ñun. Mm-hmm. jot nañoo xam ay nit yi nga xam ne peut seen jikko neexuñu. mais dañuy ànd ak ñoom. li tax ñuy ànd ak ñoom peut-être ñoo koy xam mais suñu ay waajur dañuy pousser à que ñu bàyyi leen. parce que pour ñoom dañu baaxul est-ce que lu baax est-ce lu bon lu ne rek dañ koo war a sànni donc foofu noonu laa <coughs> laa tolloo génération am peut-être wala philosophie de vie am. Mm-hmm. daf koy jox ne lu bon rek dañuy beddi sànni. Mm-hmm. ma ne man d'accorduma parce que euh, jàmbaar amul ku yàlla dimbali moo am. dëgg la ma jox ko ba jox ko exemple mag boo xamante ni tey peut-être ñu ngi koy sukkal di ko raamal respecté ko te xëy na ci ndawam nekkoon na ku safaanu. dëgg la kon la vie lui a donné une chance. ba mu màgg ba nit ñi war ko mën a jox cër. chance boobu àdduna jox la ba ñu ba ñu mën di la xool di la respecté. Mhm. war nga ko war a mën a jox keneen ak keneen ci kaw mu am une possibilité. Mhm. muy benn deuxième point bi mooy euh, damay wax ne Sénégal waajuru kenn bonul doomu kenn bonul. moo ma jaaxal gis nga Sénégal on parle de mauvaise fréquentation mais kër boo duggoon ñu ne la doomu këlee bon lu sama doom. Mhm. parfois da ngay yor sa doom mu nekk moom sax parti bu maal bi mooy ne bu dee daw moom la ñu war a daw moom la ñu war a fréquenter mais doo ko xam parce que yow lu baax rek la lay wan ci boppam. bu génnee ci biti wane safaan si biti yow nga jàpp ne sa doom moo baax. Mm. koo ko gis mu àndal nga ne ñi muy àndal baaxuñu. et parfois da ngay fat sax un chef de gang si sa biir kër doo ko xam. ci sa éducation peut bu la doy. ak nangam ak nangam moo tax ma doon wax Pape. bien éducation bu ko doy. waaw Sophia dina defar defar ba mu baax ci biir kër gi. mu génn su fekkente ni dugalut ab yar boo xam ne alxuraan ci ab dënnam. lu fëkk. waaye defar ba baaxul. fëkk ah, day am ah, kay defar ba mën naa baax lu fëkk. soo defaree pare tamit da ngay tëj defar bi dafa yànq. non non yànqul non non déedéet mën naa defar lu fëkk. xawul wér waay da ngay neex a mën naa defar lu fëkk. Sophie continuer please. donc maa ngi woon mënaloo ma dara nag yéen ñëpp mënaloo ma dara ci loolu waaw mënal leen ma dara mën ngaa defar ba mbaax nu fëkk waaw defar ba dafa mu génn nu fëkk man nekkuma ci ki ñu fëkk de maa ngi ci ki nga defar ba yaakaar ne dafa baax nekkoo ci am na am na mais man mais maa ngi ci defar bu yànq bi rek xam naa sa ñetti sa ñetti couleur bi ko sonal daa di sóor yànq fekk mënoo togg xam nga mooy yar rek boobu daa fekk mënoo togg waaye di nga yar ba mu baax yow nga wàccoo ak yàlla mu génn. mais di nga gis tamit ku mën togg lool bés ñëw togg bi rate. ñu ñam mu naqari lool. musul am waaw ku bëree yaay daan maa ngi ci ki bëree ba pare daan léegi fa tool toll. il faut nga am tuuti background am nga sagesse lu nekk nag sauf sagesse d'écouter. dama ne man. tu es sage tu es un sage nga amul quoi. taxaw di dugg ci net bi. <laughs> Ah, ubbi ndax yàlla mu may ñu waaw woo leen na woote wala mu may ñu. ci net bi ak di wax lu nekk. ñooñu ay xaritam nañu. ñoom la ñuy wax les amis de Sofia. ah yaa ngi fekkee keroog. bi dégg bi muy def social. fële ca camp pénal. yaa ngi lay camp pénal dafa doon toj. ay t-shirt yu bëree bëri ñi ko doon topp. sama gars yaa ngi nelaw de ñi ko doon topp entre nous. ñoom ñoo koy topp ba tey. les amis ma foog ne dimanche lañ lay topp. am na ci koo xam ne bugguma koo may promotion. mais il faut naa ko tudd. naa ko tudd. kan la il faut naa ko tudd. kan waaw. fexeel ba na bokk les amis de Safia papa. wallaahi su fekkente ne xamuloo ko yàlla bu ma di sant ak borom Tuubaa ak yoonu xeer waaw bëgguma ko may proche waaw. waaw minute bu biis tuun. lan biis. biis cuun. saa yi da ngeen lim émission yëpp xam biis kan. dama mi ngi xam nga ne xam na ko xam nga ne xam na ko. biis kan bi xam nga ne maa ngi wax mu ñëw daal di ko daal di jaar ca tur ba biis kan bugguma ko may promotion. baal naa la bugguma ko may promotion waaw. ba Aïssatou Sall depuis Los Angeles. yaa ngi tooñ sama waa Aïssa Sall. papa dafa gudd na. ok depuis Los Angeles. d'accord xam nga tamit nii la. dañuy tooñ. waaw doon lay jàppale. non sérieusement dañuy tooñ. man maa ko tey ne bis rek. moom mu ñëw daal ne bis kan. waaw parce que bis kan lu mu defee yow xam nañ bis kan xam na ko kenn xamu ko de. ah su dee xool li ma yàq ci commentaire yi bis kan. bis kan day bind rek day bind rek commentaire day bind rek day bind moom laa ko xamee noonu keneen xamee. elle fait partie des amis de Sofia Diatta. ci yàlla waaw yàlla baax na waaw barke borom Touba Mbacke. ah papa bul wàcc borom Touba moom mooy ñi ñi ànd ak moom ci kii ñi ñi ànd ak. da nga am bis yow xaw ma ko. xaw ma ko Sophie da nga xam bis Safia. su ma teg bët yàlla xam na lan moo tax nga tudd ko léegi. parce que parce que bis kan commentaire yi ba continuer la continuer la man du ma seen wax tam xajoo si yenn yi nag wax dëgg yàlla wax dëgg ah, non non non dëgg laay wax ba keroog ngeen kii amul kenn ko dama ne yéen kay li ma leen di ñaan waaw baal naa la Sophie continuer ah c'est bon Sophie continuer ma am lu ma naqari xam nga lu ma naqari. <laughs> waaw bàyyi mooy gune yëpp tëdd na nelaw. te émission bii dañ koo war a wàccee ba nga xam ne. aywa gune yi kenn du dox kenn du tëdd kenn du nelaw mais xam nga ne waxtu wii. waxtu wii nañu yokk 9h waaye 21h ah, ah, s'il vous plaît waxtu wax mais xam nga ne waxtu wii. dañuy signé pétition ñi ma war a seet. man damaa gis daaneel 2 millions sax. pétition ah, pétition pétition damaa gis daaneel 2 millions. dañuy kaas rek mais c'est pas dama fëtte. waaw baax 2 millions yu ma daan am. du ma ne ba xam nga dañu bàyyi soomu yeggale nag. ba mu gànn la mi ngi gën a guddee. ñu ngi gën a guddee du man bugaan la mais su wàccee émission bi. ana biche kan yéen ko ma sa gis. waaw bu ko may promotion. papa yow ay toogal la nga bàyyi ma man lu ma neex laa wax yow lu la neex. man Aïcha Sall laa gëm depuis Los Angeles. léegi ñu ngi woon ci nga xam ne waajuram ya yar na ko ba jàpp ne am na ndam ci yar bi mu yar doomam euh, mu dem ba mooy doom ji nga xam ne